amoon naa ko fi yaay amul mm. bokki taalibe yi nga xam ne yéen ay jaayanteeg sëriñ Tuubaa di ko indil seen alal fii sous forme daayira wala ci beneen mbootaay gu mu a doon man la Abdul Akram Mbàkke yi suñ boroom dogal sëriñ bi di ma càmbarloo liggéey bii taalibe yi di fi indi léeg-léeg nag dama ci gis yu xaw a amoon na ci màggal gi répété wu na tey yéen a ngi gis enveloppe bii ma tiim daayira talaatay maam Cheikh Ibrahima Fall la tudd ndakaaru lañ jógee tey jii lañ fi ñëw le vingt cinq douzième mois deux mille vingt et un ku ñuy wax xaadim Thiam moo ko jiite feuille blanche yii la dagg def ci deux cent mille rek lañ annoncé woon moom lañ moom lañ bind ca lettre bañ leen tontu yóbbu kon ku bokk ci daayira boobu na nga xam ne xaarim caam feuille blanche yii la def ci lettre bi waaw maa ngi nii nag toog nag ak Serigne Cheikh Mbacke Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma doomu Serigne Mountakha mooy sama seere bu ma dajjee lettre bi mi ngi nii ci kanamam la waaw fas naa ko yéene def ci matukaay yépp nag pour pour pour pour moom mu xam ne li mu def Cheikh Ibrahima Fall xalaatu ko hmm. kuy tuddoo Cheikh Ibrahima Fall te mu wér yow sax xalaatoo ko waaw li ci des it mboolem ku yor daa ku yor jëwriñ wala dara